salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa aduna euh, li benn vidéo bu ma doon la si YouTube bi ma gis ne Ousmane kii kii di El jouf Diouf maître El ci quartier général bu démb bi nee na moom musul wax ne Ousmane Sonko musu ko jiiñ ci wax ju leer léegi beneen vidéo bu ci digg bi boo ko xoolee moom demoon na Walfadjri wax ne violeur euh, du jiitu du jiite Sénégal. tay mi taxaw di wedd ki nga yaakaar ni nit leen man Sénégal dama yaakaar ni ñun dañoo am lu ñu dal quoi ñenn ñu ko sañ wax lay wax sax ndax ku mel ni El Hadj nii genre yi ñooy tas réew tas aduna génnaat ci ba set na du ñoom kii bu taxee tey jii nii ne moom musul wax lii Ousmane Sonko non c'est c'est grave c'est grave ñun lu ñu dund Sénégal loo xam ne dane fàng ñëpp xam ko ngay nga nga ñu naxante suñu biir ñun dañuy dañ dañ am yàlla baal sax ci wax ji

bu dee dama ko wax nag xëy na ci beneen saal laa ko waxee waaye du saal bi day laajal témoin muy premier terme ma ma waa jooju ñu jiñ moom la. Ah moom dafa mel ne loolu la dégg. kii biir sax. kon dafa déggee neneen na madame Cissé dégg ngeen wax loolu. ndax Sénégal kat violeur du ko yore. dégg nga mu mooy benn vidéo bi. xam nga ki ñu waxoon violeur moom bu doon violeur laaj ñoom moo taxaw Sénégal damay laaj Sénégal. c'est grave bi nekk ñoom loolu lañ ma yéene waaye yeneen ne borom a ci fanaan attention ci yàlla am na lu génn ci audio boobu nga xam ne xaw ma dëgg la am déet loo xam ne day wane complot même bu doon dëgg la gisuma fa complot. mais maître mais maître kii yore audio ki génne audio boobu nee na yor na yeneen audio yoo xamante ne aji ci boppam danaan viol amu ci Sonko musukaa violé waaw mais xam nga